internet wu Medina TV ak Siweul ko TV ñoo ngi leen ñu nuyu di am mbégte di jàkkaalook yéen comme ni koy defee nag à chaque fois yéen li leen neex ak li leen bëgg rek moo ñu fi tax ba tax na nag tey dañu jàkkaarloog daanaan nee naa ko kaana kaana du réer yooyu lay wax de the king of the mu def vert loolu kenn mësul am fi def ko daa di def jaune dugg ci otom bu jekk bu am maanaan loolu yëpp dinañ ci ñëw waaye dama ko jox micro mu nuyu mbokk internet yi Meshob ziar naa la. Wasiar nalen naa leen bu wéré wér ñu ngi am contentement si sen jëm xam nga di kontan ci téway bi nak li yombul gis na déplacement bi ngeen def ak xam nga fi ngeen jaar yëpp ba yegg si kontaan naa ci yeen kontaan ci wa Dakar ak àddina ak liko wër ñu ngi siar ñëpp di siar suma ndey di ñaanal suma bàyyi wa di kontan ci Dakar dal ak àddina ak liko wër wër jëfëti mhm. mais sob ñu fekk la ci auto bu toy bu bees tak auto bi ban marque la. auto bu toy ñu ñu koy fomp rek mu waw li te nawet lañ nekk. ci nawet lañ nekk bu yàlla di taw moom ngay fobeere barki borom tubaab Mbàkke say cëre fay jeex rek waaye mënoo ci dara. Mm-hmm. lii lu wow koŋ la boo ko déggee lii wa tax ñu koy wax. teraanga àddina ziya nag gars yi fair play tubaab du moromu naar bi ngay dégg may wax. lii yëpp ñoo ko waral. Mm-hmm. nag gars yi fair play rek tubaab du moromu naar ndogalu yàlla bokkul ak bu nit. Mm-hmm. li yàlla bëgg ak li nit bëgg. li yàlla bëgg mooy njëkk a am. te bu ko amelee ci nit la koy amel. kon nag gars yi fair play rek tubaab du mu naar. ban marque la. kii Mercedes la. bu dul Mercedes di béyam moo tax nit ñi mënuñoo yem rime croisé la di wax ji waaw tey Mercedes la bu subaa béyam la waaw lu wow kong la. Met Shop euh, ñu gis tey dafa am benn nouvelle bu neex wàcc faramaareel yi muy ñu gis Doro Gueye dañ ko libéré euh, ñu gis nag jéego yi ci Wally sekk def boobu ba léegi tey sànq ñu gis ni génn na loo xam si loolu. wa kontan rek ni alhamdulillahi rabbil alamin kom bismillahi rahmanir rahim lañ ci waxon ba problème bi tambalé wal dafa ne bismillahi rahmanir rahim ne ci ne ci ne ci ne ba ci ba alhamdulillahi rabbil alamin mhm. koku sant rek lañ def ndax taxawayam ñep gis nañ ko jabanté bi wali don jabanté tribunal waralon bind kat yi ñi melni yeen mhm. ngeen bind ni wali dañ koy convoquer nangam ak sangam mhm. fekk ne kañu japp moko ñor mom la don taxaw motax sa bu xeye départ dem du sax nelaw bay xey day veillé ba 7 heures matin mu taal otom dem dem boobu muy dem nag ngeen koy séen di ko romb gars yi di ko vidéo moo waraloon seen xalaat boobu ngeen ne dañ koo convoqué dig moo ko woolu procureur woo na ko dara kenn woowu ko moo doon xar tànk tubayam ngir Dolé Gueye génn ci biti mhm. ndax ndaanaan la waayam la te ñoom ñaar démb la tey soo a ñëw mhm. am na loo xam ne lu munul ñàkk la woon moo tax kan nag dañuy sant yàlla julli ci yonent bi ni alhamdulilahi rabil alamin mhm. génn na waaye gis nañ aussi dafa nekk sous contrôle judiciaire ñi génn ñëpp sous contrôle judiciaire lañ ah du ñëpp de dama ne koo fi gis muy génn procureur nee na la boo moytuwul nangam ak sàngam fii ak juróom-ñaari weer juróom-ñett lu ndaw lu ne mun na la indiwaat fii. su contrôle mooy loolu. waaw buñ la buñ bu defalee buñ la defalee liberté provisoire dañ koy booleeg ay lu ne porte manteau la rek lu ne lañ ciy lonk booy dem génn ak moom. waaw duñ la bàyyi noonu. Mhm. ndax loolu mënu ko yàqal euh, tuuti si liggéeyam ndax gis nañu Doro Doro international yu ci bëri ay activité am international la dafa am international am national. Mhm. nit buy dund da national fi nga juddoo ba pare international. Mhm. bu international bi demee ba ko Covid bi ñëwee gis nga ñëpp fu mu toll nii dañoo toog seen dëkk di liggéey. Doro boo ko xaaree fii mu génn fële am na ay pexe kilifa gu mag a mag la du ay caaxaan. monsieur ñu gis la nga ànd si tournée Wally Seck bi ñu nga bàyyi fa Wally ñew Sénégal lu waral lool wa xam nga man moy moy limay wax rek man digënté wali balago sek ak Ama Balde Ben bop la kenn mënu ko xar ñaar comme que kenn mënu ko xar ñaar nak man may xar suma jëm ñaar jox ki moitié bi jox ke moitié bi mo waral ma doxal ba ci yàgg gis ni combat baangi jégué sama yaram di tang jër ndax man ak mom démb la tey soog a ñëw ba muy mbapat lañ daan and di lonkante muy tek loxom fi sama mbag ñuy bok ci benn neeg di fa man mom ak baylat mi genn adina baylat accident moko ray rey ca yoonu Touba ba tay mang koy joy suma xaritu benn bakkan la jamono ji may lang ka rapide déparé fé ci koloban wacc buntu pikin sol ay dal plastique yor suma musu ladan la daan dem pikin di Ama Balde lol du tay demb la mujj bi aw fu may tayal na ñibi ba bop ñu bari dañu xani pikin la dekk baylat moma fat ma fat ngi ñaanal yaayam yalla xare ko seen kër laa doon nekk Ama Balde yaayu baylaat moo nekkoon yaayam mhm. danoo yàgg ma nag moom démb la tey soog a ñëw munul làmb ci àddina may dund ak fu ma nekk ci kaw suuf damay départ ñëw mhm. ba pare nag ndaanaan bu mag bi ñu koy wax the king of the mhm. xam loolu comprendre ko xam ko bu baax a baax a baax ni ma met lu mënul ñàkk foog mu am ma ne ko lan la mu ne am ni ma gi ñamax ñaari million ni ma wàccal ndakaaru supporter Ama Balde taxaw ko comme nanga ko daan defee maa ngi lay xaar altina wala mardi jam dama nan gi ñamax wat pari kon dal Ama Baldé moo tax nga tew senegal di ko jàppale ci combat bi mais mbeur mu mak la am de giri Bordeaux combat bi du yomb de. ah gis nga giri bu don may mom luma ko sant moy bu jige ci li mu dem Bordeaux tok fa. ah lu waral lol France ya. nga tok dig Medina nak wa dama ne. Euh, merci dig Medina nga tok ni ne giri waaw di def émission nag di di wax lu la nek giri du yoon de. man universal la giri kana bu maga mak la deug la nak sama grand yu bari mom lañ faral ñom grand galas wa parkini fi xam nga ñaari seex yi ca zone B sorantew ñu ñoo jàkkaarloo maa ngi dëkk bopp giri faral naa ko ci combat yu bare bari billahi du ay caaxaan waaye bii na ma jàppale rek te fair play moom giri comprendre ni tubaab du moromu naar dëgg la may ma ma jàll dama yàqamti na ma may ma jàll kaw est-ce que am fu ma waxee mhm. bu doon ma xool nu ñu koy négocier sax mais giri moom leer na ko leeru yàlla daf may may ma jàll dem. foo teg loolu giri jóge si defet ama jóge si defet ñoom ñaa ñu ñëpp ñuy ut nga bëgg giri xajal ama giri boo ko laajoon mu ne la fàtte na sax defet bi mu jóge giri amul temps bi nga am de yooyu dara feregew ko ci ñeente giri namul dara yoonam new si jarul baab de dama ne baabu ma ko ci lenn xam naa giri bordeaux ay daanoog daanu la yemale ndax min na ñaar yëpp mooy rawal Bukhari. bàyyi leen jàmbur mu neexal ni mu def démb dégg ko yëngal leen ci kaw ma cons ci suuf xam nga kan giri ku mu invité reer la yori tok ràcc def ay affaire am teg war war gak sukkaram ak yoy mais yow di yaa ngi yaa euh, di xalat ku Gris bordo bu ko Ama balde wara encaisser encaissé ku Gris la aduna ñep ragal. Gaston meng ba mu jele avance malik Niang def ko ci mbuus bu 100 francs keur gu nek mu wàcc fa Pikine géeja mu dugg dugub way dem yarax fune ne mu dugg fa ñu ne ko yak sa mbuus mi delu len mang ngi koy ñaanal yalla xare ko aljana mom Père Gaston mm-hmm. mu dem ba ñew Pikine fekk falay Balde baba yo, tok ci buntu kër gi mu ne ko avance malik ñang la yor baba ni ko bay ko fi mu ne ana am mu ne ko dafa genn ama netti la ci am ba mu ñew dafa ne baba jël nangam joxal ma nangam nangam li dess jox ma buddi mbuus bi dem ak mom malik ñang ni ko naa la dóor 60 coups ci 1 minute moy 60 secondes chaque seconde ben coup 45 lu ko yenn mm-hmm. te malik mo dak xex ginnaw bir gëri Bordeaux Tyson Malik Niang giri Bordeaux Tyson coup direct ñom ñom la ko yalla may kan ama jël na ci 45 bu paré tok diko xol wa medina amna ñu euh, na ama asthmatique la dé wa bañ ko dalé wax yag na ama balde ak guuy gi ñoo doon bëré ama jël combat bi yenu ko utal ko papa yaay ak dom soxna ci dama bëgg bo may interview nga mu xulli ma fi mu no wax fi di wax fe né jak jakal ak man ñu détail dag ma laaj ma war la tontu nga wax dima wax dama ne ama balde guuy gi ñoo doon bëré Ama Balde yaakaar ne combat bi moom moo ko moom mooy bàyyi combat bi di ndeyu combat bi di maamam di yaayam di tontonam jël kombaa ba yenu ko indi force am indi doolem indi lépp ni du noppalu. jeexal tàkk commencé xiixat ba surux moom moo daan boppam. combat boobu la nit ñi commencé naan Ama Balde dafa am asma ba tey. Marianne Jones mi dàq daw ci àdduna li Ama Balde daj bu ko dajoon làmmiñ bi day daanu. keneen ku dul Ama Balde bu ko defee sonn. loolu la ñuy jaawale ak asma Ama Balde gën a wér péng jaara conteneur naa ko xool mais mais Medsob euh, keroog euh, gis na gis nañ gis nañu nga keroog ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé def na open press am Pikine yaakaar naa ne gis nga ko ci digganteem ak Modou Lo ñu bëri naan dafa blessé blessé wul mu ñëw engagé bëre bi bëre ko gis nga ne mu demee gisaat nga ko ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux keroog taxaw na arène nationale wane na boppam wane na ne wér na dara dalu ko jaayu na physiquement naka nga ko gisee yow ni nga ko gisee ba kontaan xam ne vraiment Ama Baldé bii paa liggéey na man noonu laa ko gisee ama doful jinne jàpp ko kaana bu mag a mag la Ama Baldé contre Modou Lo fi mu jógee tarxiisu daanu boo fa jógee woon da ngay génn àddina ici repose lañ lay defal yow ndax amoo doole boo tëniree loolu mag mu tarxiis la jógee fële ca escalier yi wàcc ànd ak moom bu ci suuf amee fa ay ay affaire yu sew sewaan dama ne gaañu gaañu bu la daloon dama ne gaañu gaañu boobu la bu la daloon yow da ngay génn àddina Ama Baldé nag jàmbaar la bañ a yàq làmb moo tax mu indi loolu ñëw bëree ko waaye Ama Baldé mbot la nga su mbot la ba pare su surux man daal vraiment yàlla na ko yàlla yërëm daal musal ko ci surux ndax combat yu bari yi mu ñàkk mooy njëkk mooy jiitu moo guy gi noonu la dafa liggéey ba dajale lépp li mu liggéey ci ay fraction de seconde mu perte ko ndax gaynde la du arrière mais wéram mii mu wéree péng nii yow seetaan nga ko xam nga ne Ama Baldé rek ak xelam mu dal koo ko boole ci àddina moo ko mën loolu la wax te li mu wax gëm naa ko ndax xam naa ama dimbala tey soog a ñëw man ak

mais mais côté expérience ndax jarul baye xel ku ne xamna na combat xalé la ak mak te gri Bordeaux même bu fekke moko gëna fété mak tamit moko ko ëpp expérience ci li nga xamantene mom moy lamb Ama Baldé am na confiance ci li nga xamantene mom moy bopam ndax mënu ko induire en erreur ci bir lamb ji. wa dama ne gri moko ko euh expérience loolu nga wax Ama Baldé nee dëgg la gri moko ëpp doole Ama Baldé nee dëgg la wayu xex xex xex mom bo fay xaar expérience di nga kawote do ko ma nga waccal sa bop affaireu bandi la. te ama bandi la ba muy nekk kàmb ba benn booy ñemee ko fa fekk tey la yëfu bandi neex nii rek gars yi di takk ay rajo mais ama ak kàmb ba jamono boobu maalaw seraas ngi si digg ndëndam ama bu yeewoo kàmb ga lay dem ba ngoon maa mu fanaan fa benn mbër ñeme fa woon wàcc na gars yi fair play tubaab du mara mun naa dëgg neexul rendez-vous bi le 30 la inshallah ci loolu itam rek dañuy wat ci benen point bo xamantene mënul ñak ñu wax ci muy ciowal auto bi nga xamantene kon ñing koy dégg ñeel ñiap euh, ginaaw kon ba mu génne woon wax ne rek Waly Ballago Seck daf ko may auto gis nañ benen way bo xamantene ne na dal di wax rek ne kon auto bobu nga xamantene mi ngi ci seen ay loxo batay tey kenn ko xaalisam ban jangat nga ci am li mënu mëna xamal dal moy walé mayena 695 auto bu mayee ñiap auto moy 696e dool duma bet du ma bett man yaa ngi may dégg lu weesu loolu lu weesu loolu dama lay wax nga bàyyi xel ku ñuy wax bajaan baram o garage kaana gu mag a mag la du ay caaxaan mm-hmm. Mansour Ndaw motoor lu wow koŋ gi noonu ñaar ñooñu senegal dañ leen war a defal chapeau ndax lañ daan gis amerique ci ñoom exhibit ci wàllu oto ak wàllu maanaam xel mu dal ci exhibit doon ko defal américain yi loolu la ñu defal ñun mm-hmm. kan ñu ngi kontaan ci seen jëmm lu weesu waale ak njàpp oto ak ka génnoon di wax damaa waat démb ci arxuraan ni léegi léegi nii laa koy doog a yëg hmm? maanaam ba ma ko seetaanee laa ko doog a yëg hmm. waaye li ma a xamal moom ci borom 695 oto yi muy waali bu mayee hmm. na ko ñeme naa may ku yàlla bind bu a mag la muy the king of la mais mais le fait que waa ji génn ne waa ji comme dafa génn jege du pour affaire auto affaire way la su ma ci tuti est su ma ci amoon tuuti xam-xam dama la koy décortiquer tasar la ko ba mu tases jox la information bu wow kongu nga dem ci for ci yow bay waa mu ne na chèque kan bin na ko waaw ndax dafa depuis corona ba tey dafa ragal affaire ay walate. te nee kom comme sunu xaalis bi dafa wër diggu Guinée jaar ci dëkk yu bëri bëri mun na fii dem fanani foofu kan wóoratul carte bancaire yi lay yor def ci sa bi fu mu rombu xoss gëj na gis copper yag na xana ci kaw seen bokk maye mu joxat ko waji mu téye lolo waral lolo lu ñew mu joxat ko lil pro mhm. su paré dem raxasu ak odzevel japp ñambaram enfant préparé la kana bu maga mag la du ay tiaxat mhm. deng ma kana kana bu maga mag la mais dañu ne ko ci bir faramaré ni li ñuy leni tudd ci ay ciowal oto itam nak mi ngi bëgga bëri ñun ñoy maye oto gaay mayu ñu mburu mayu ñu mali mayu ñu ngeen maye lu baax wa lu bon lañuy maye lu bon moy oto di yow mi maye ay tàngalmant di njeer yaay maye lu baax konkorong kero koy toj deug neexul tamam lo xamne nak gaay fête balay tuwab du moromu nar li sa way mun ku ko rombu sacc te bo sacce ñu tejj la 1 an bo génné di nga xougué ma nga bi jaw mhm. nga gaay moytu the king of the soxna si ma lay xamal benn bir mhm. ka na gu maga mag la du ay tiaxan xamna ko bu baaxa baaxa baax mhm. di meun kenen ku ko jëm genn adina yalla ko may extraterrestre la nañ wax lenen sa pelante boko dugulé mu jot ci inshallah di nga am auto Euh, Medshop euh, ba tey rek ñu xuur si benn événement muy suba euh, Sidi Diop organisé Zénith nee naa waaw Subatel musique ñëpp a ngi fa noo gisee loolu suba événement Sidi Diop bi waaw loolu moom mooy li may wax rek Sidi ñu ngi koy ñaanal yàlla lim ci bëgg mu am ko muy victoire di namu Sénégal mm-hmm. seetaan naa suma grand Gadiaga ca TFM mm-hmm. mu ne lii Ndakaaru Sénégal président bi da leen waroon sax recevoir jox leen drapeau ñu doog a dem foofu la euh, foofu la foofu la musique bi toll léegi yaa ngi dégg da nga war a dem jaayi sa drapeau ñëpp war see jàpp moo tax the king of the xalaatam bu rafet bi sii Sidi mu ne ko naam mu ne ko damaa bëgg ngeen teel a dem def challenge génn ñëpp xam ne ñëw ngeen loolu mooy feesal affaire bi waaye du toog ndakaaru ba dernière minute ngeen dem kooku ku la yéenewul lu ko wax Wally moo baax. wan nañ fa mën a wan nañ fa mën a xaar boo ko fa xaaree ci balance bi nga koy xaar loolu dama ko wax gaa yi xam damay non Wally dafa am date comme si di motax te fam ko am dafa sori ya ngi dégg tey mu ngi jouer tay ci aljuma ji ñu nek ma ngay jouer fe ci almagne su fa jugee ci samedi ba day fanaani ji ca dekk bañuy wax euh Genève motax mu mun wax tur ba ca Gambien yi fa lay fanaani ji fay jouer le 29 neuf kan koku munul jugee dekk bobu dekk ak di dem pour euh, ci Sidi job bu dool won amul programme xam naa Wally xam naa the king of the ni mu defal si Siliki Jabate noonu lay defar Sidi Diop ndax deretam la rakam la fereeram la. Mm. barki Cheikh Massamba. kon mm. ci balance bi daal lañ ko mën a xaar. balance bi du fekkoon ne ma ma nii nii sax nii nii sax balance bi mujjee na xat mm-hmm. ndax moom day day joué tey bu xëyee suba day balance doo ko joué kan du mënati dem. ci lo tamit gis nañ message bi nga xamante ne euh, Wally Seck bind na ko tey ginnaaw bi nga xamante ne Sidi Diop na France 24 mu mel ni rek dafa def ay erreur France ay mots français yoo xamante ne ma ko fa doon wax ban nga am ci ko di koy xamal rek ne ko ci ab poste bëgg nañ ko te musique moo tax ñu bëgg ko français yi muy làkk amul njëriñ na doxal genre lu ni mel. waaw waaye xam nga dafa am xam-xam tey dama la wax benn affaire ñun mënuñu làkk olof jàng olof ñiy jàng ay ay fii ay joolaa lañ fiy làkkee ki ay soose nga dem France 24 tubaab bi tiim la dila la français ngay par force dole mbaam dang ko koy gëna dégg man lool duma ma ko nangu wa bu doon may siiri nak moom ñewuma la français ki ay français mbeur la fay yu guuy gi lay ab ay français dem tok diko fa làq nañ xam dal daal de 29 day juin té na salle bi fess loolu ko ñor article 649 mom du ko utiliser di sonal sama jëmm jàngu ma ko jàngu ma ko ba ma tontu la nga làq ma leneen ma tontu la bamu dess français ak anglais dafa metti sunu kat yi nañ ut ko leni traduiral luñ fa wax baxna sunu yon yoon waaw monsieur Cissé Alima Ndiaye mais ñu ñor gis la léegi namm la léegi. njaxatelaat kenn du ñu rey aca balaa ñu jeexal suñu dernier question taxawaayu ki nga xam te nag buñ ko waxee moom itam ci ci présidentielle bi moom itam am na ci solo muy taxawaayu première dame soxna Aïdara moom itam gis nga ko jóge na France dem fekki Balago ngir dooleel ko waaw kooku ndaanaan la ñu koy wax the queen of the the king of the mooy mooy Wally Balago Seck the queen mooy soxna Aïdara ndaanaan bu mag a mag la kooku na ma ne na na na na ko état financé benn deux cent milliards mu tabax école boo xam ne nii dañ fay dañ fay dañ fay def ak ak yelleefu doomu aadama yu jigéen yi ngir jàng leen ñu jàngal leen nu ñuy sëyee ak nu ñu waree waaw valeur daal nu ñu nu ñu doxalee daal ci àddina soxna ànd naag dal teey baax yaru respecté doomu aadama xam ni muy waxee ku yéemee ngi noonu yërmande gu bare bari moo nekk jëmmam buy wax wax buy wax ak nit sax nank lay wax ngir bañ la ñoo xam ne dañuy yuuxu te xamul fekk ne ñu ngi lay ko wax day ànd ak dal teey boo ko seetloo gis ne wax bi am na ndey am na baay muy wax bu maasale mm-hmm. bu nooy nepp bu du noonu lay waxee mm-hmm. ndaanaan la li muy defal waali ci bu reeree ba pare noonu lay defal képp ku yàlla bind ko fa toog xeebul kenn mm-hmm. te bu ñëwee dana sukk ba nga yàkkan day waaj a daanu kooku am na yar te boobu léegi merul mu su musuma gis fu mu fu mu waxee lu ñaaw ndaanaan bu mag a mag la du ay caaxaan vingt quatre heures xaw ma quarante huit heures la def ngir lan dooleel sa ne maa ngi ñëw maa ngi nii maa ngi ñëw damay delluwaat loolu ndaanaan si kat deug mo koy def kilifa gu mag mag la do ay tiaxan te bobu leg yaangi deg lu ne ci aduna ngay deg te bobu la gën a muñ mom kay dama na la ku melni ni fi ak 100 ans la ko yàlla di bindat un siècle ñing lay jaajeufal waaw jaangi ma ngi contane ci seen jëmm Malick Pescara siyaar la bu wër wër du ay tiaxan kana bu mag mag nga ada bey masta la nga def Milan cioli barina article 749 moo lay topp ba tey tubaab bi nee na nga fay ko booy forcé nañ porte bi dajji bunt yi def lu leen neex ngir xajuñu ci salle bi article yooyu France la am yooyu ay yeneen xeetu bagage la kontaan naa nag ci kii laa lay wax ñu koy wax njiin pneumatique bàyyi leen ci xel gaz électronique jërëjëf Fallou Kolobaan baram faramaren choc ñu ngi kontaan sa jëmm Tafa Dieng mbokkum yaayu grand père ca Genève jërëjëfuti to ay caaxaan lu wow koŋ ngi noonu Mortala Fall borom Sandaga jerejeuf ñu ngi siar ñep di kontaan sen jëm siwel ko TV ak Medina TV mhm. forever lu wow koŋ ngi noonu yéen li tax ma bëgg leen moy matériel ngeen yor bu doy nekku leen fi di korkoral da ngeen ut matériel bu xéré tek seen projecteur mu leer nañ ngeen indi lu wow kong animatrice aminata mam jaara Buso Aminata bintu wax bint kontaan na sen jëm xale yu pare ngeen dégg ngeen français am ngeen classe waaw ñooñu ay nit yu xeere xeere lañ ñii boo déggee ñu naan <laughs> konkoron xeere koy toj ñooñoo tax ñu koy wax ay mbokkum yaayu ama ama balda lañ di mbokkum yaay the king of the kontaan naa ci ñëpp <laughs> giri bordeaux xaar damay ñaanal giri giri bordeaux yal na yàlla dogal ama balde daan la ci barki arxuraan xam nga loolu neex na amin to basan ak boo ci wax yaa xam dama la mën a xamal daal mooy kontaan naa si seen jëm ne ma naan nag gars yi fair play tubaab du moromu naar dëgg la sa king of the ak lan wa sax lan bienvenue du ay caaxaan lu wow koŋ ngi nii. jaa Shop International. baram Adoris. siyaar naa ko ñu koy wax Issa chéri Dora Magasa.